Euh, monsieur le président monsieur le ministre man loi euh, D'abord, lui pertinence d'abord d'arracher un constitution bi gaz peuple l'exécutif est toujours le maître du jeu Le décision finale d'investissement yi gaz bi sein Saint-Louis jaay ko wala ñeneen xamu ci c'est toujours l'exécutif moy joxe licence concession etc assemblée fu peuple bi donc rien n'a changé monsieur le ministre man ma ne c'est pas pertinent mais <coughs> gaz le gaz de exploité Sénégal gaz

ñu ci bari dégg xamuñu ko mais waxon na ko fii moo leen ëpp vision sax ci côté boobu politique fiscale gars yi wax nañ ko gisuñu ko collectivité territoriale xamuñ ci dara politique environnementale les les pêcheurs de Guet Ndar gisuñu leen alors franchement japp naa ni loolu yëpp da ngeen ko war a élaborer waxtaan ci peuple bi avant ngeen di ñu andil ay loi loolu nag monsieur le ministre loolu laa constaté ñu dëgg-dëgg gisuma fii lu ñuy wax politique gazière politique industrielle fiscale Environnemental, et bien évidemment, il y a les ressources humaines, euh, lol tamit euh, Alors, à partir de ce moment-là, un organe de régulation. à ce moment, l'organe de régulation de la Sénélec, là, de l'électricité, on vient d'élargir. Mais alors, pourquoi on a besoin de faire une loi pour ça Quel est l'intérêt L'organe de régulation de l'électricité existe encore quel intérêt avons-nous à créer un nouvel organe de, de, de régulation Je loolu comprendre eh bien donc ce di à mon avis c'est pas du tout pertinent ce que vous êtes en train de nous proposer d'autant plus que c'est le Sénélec c'est la Sénélec pardon qui va être acheteur du gaz ok donc l'utilité, lu ci gaz, du war a gaz bi y a le Sénélec il y a xëy ci Maintenant, en na filiale boo koy toppatoo man loolu laa léegi nag en réalité lu tax ñu andi loi c'est pour introduire leurs copains dans le business Et leurs parents européens ne nañu dit dugal ci business bi ñu mën jënd gaz bi di ko que loolu rek ce qu'ils loolu fait tax ñu andi loi bi loolu moom moo ñu andi ko di alors qu'on n'en a véritablement pas besoin lors de que loolu l'a constaté fii ci loi d'ailleurs c'est très mal écrit c'est un amendement yi baaxuñu Hein? franchement loolu yëpp ay précipitation